war a soxla nit ñi yow fekk si la bayre bi pour yow la bayre bi nag comme niñ leen ko waxee mbir la moo xam ne lii njëriñam mooy yokk xamale doomu aadama tax ba nit ñi xam la waaye nag du yeewuñ ci xam la kese waaye xam la bu ànd ak jëflante ak yow jëflante jëflante bu ànd ak barke yow mi nga xam ne dangaa soxla nit ñi xam la ba noppi bëgg la ndax nit ñi mën nañ laa xam te duñ la bëgg nit ñi mën nañ laa xam te si jëflante ak ñoom du am nit ñi mën nañ laa xam itam te duñ la yéene seen alal secret bii nag lii njëriñ li mooy nit ñi dañ lay bëgg ba noppi dañ lay yéene seen alal yow mi nga xam ne yaa ngi may déglu ni ngay def boo bëggee am bayre bu gaaw bayre bu yéeme bayre boo xamante ni bayre bu buy sax lay doon newut bayre boo xam ne dafay commencé ba mu yàgg arrêté ni ngay def da ngay bind sóoratu naas yi moom ngay bind nga bind ko trois cent treize fois cent 313 fois moom nga koy bind comme ni nga ko gisee sourate Naas xulonge bi rabbi naas ba saar bi jeex nga bind ko cent 313 fois boo ko bindee cent 313 fois ba noppi da ut xasu xay moom ngay ut insha allahu rabbi yi boo noppee nga ut euh, timin timin ak was wa sóor ñaar yooyu ngay ut ak li nga xam ne moom la ñuy wax bàcc coor boo demee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di jaay xas yi ak ren yi dañ koy am bàcc coor moo nekk nii comme ni ngeen ko gisee takk bi 400 lay jar am na ñu koy jaayee 400 am na ñu koy jaayee 300 moom nga koy booleet incha allahu nga sangoo ko lu toll ci fukki fan ak juróom 15 jours incha allah 15 jours moom nga koy sangoo incha allahu boo koy sangoo doo ko sangoo naaj bi tàng da ngay nekk wala guddi nga allahu képp koo xam ne def nga ko yàlla dina la may bayra boo xam ne bayra bu gaaw lay doon incha allahu. bayre jooni jooni ñi ngi sant ñi gërëm ñu ngi leen di ñaar yàlla yàlla yàlla may ñu dégg may ñu topp yàlla yàlla musal leen aar leen sàmm leen làq leen fa ngeen xam ne ka fay yàq du fa yegg yàlla man na ko am na ko yàlla ko yàlla def yaara bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu